wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa aatharuhum ila yawmi ddin bokk julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu wa taala ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñëw tey rek ci wërteefi ajjuma ci ab jullit nga xam ne julli ajjuma farata la di warugar ci jullit bu nekk ci bépp jullit boo xam ne sart yi lislaam nangu ci jullig àjjuma daje na ca moom sart yi nag mooy gannaaw boo doonee jullit ba noppi nga doon mukallaf di asgor di góor te dëkk ci dëkk bi nga dégg ci ne kon julli ajuma warul xale ki matagul mu kallaf waaye teew na bu ko defee dana wér ndax dañu bëgg mu teel a tàmm lu baax dégg ci nit warul ab jaam ca ba jaam di am warul it jigéen waaye ku ci nekk bu ko mën a defit def nga baax na warul itam ci musaafir ki nga xam ne dafay tukki tukki boo xam ne tukki bu war a wàññi la bu sàtti daje nag nit ki amutoon sañ-sañu ñàkk julli ji àjjuma te waralu ko ñàkk julli ji àjjuma bàkkaar bu rëy rëy la ci ko amul ngànt salaasam sax na ne ki tegale ñetti àjjuma yoo xam ne julli jiwut te amul ngànt dañu kaste ab xolam loolu kon musiba la mu rëy ci ab julit ana ngante yan la nag ngante yi lislaam nangu ci ku mu gaar bam ñàkk julli jàjjuma ba njëkk mooy wéradi wéradi gu tar goo xam ne euh, julli ji du la ci yomb mbaa daan la jural jafe-jafe mbaa nga wéradi le ab jege ñaale mbokk mu la jege moo xam ne àgg na ci xar-xarle daanaka te yoo képp yaa fa nekk ci ku ko mën a taxaw ku koy dimbale ak diko ko di ak di ko féete fa nga ko féete mënoo faa ñàkk loolu ba tey ca ngant yi la bokk silmaxa gi nga xam ne munta demal boppam te ko ko ba tey loola ca la bokk taw bu tar lool lool ba xëyu su ko mën a dañ ko limaale ci ngant yi ab ngiro it e, dañ ko ci limaale ci ngant bokk na ci itam ki nga xam ne dafa amee bor te mënugut a fay te wóor naka ne su demee jumaa ji dana dajeeg borom bor ba te dana ko ci dana ko fitnaal mbaa dana ko taxaw loolu ba dañ ko limaale ci nganti ajuma yi maa dangaa yor xet gu naqare goo xam ne mën ngaa lor mboolooma ma te mënoo teqali ko xet ga eh, borom di ko di ko di ko junj ci lekk laaj mbaa yu ni mbaa ko niru ba tey ci ngant yi la yooyu mooy yi ci gën a fees ci ngant yi nga xam ne ndiki sañ na cee ñàkk jur waaye ngant loo xam ne rek ñàkk ko jot rek la wala na ci sa yittee bopp wala yu ma noonu loolu du ngant la juma kon ki sàttee daje ci moom amul sañ-sañu wuute ko bu sàtti daje ba noppi sàtti daje nag te julli ji woo yi ma tudd waralu ko dul ay yittee ki xat-xati àdduna soo bàkkaar gënu ko rëy ana nag nan lañ koy defee soo demee waxtu jege nga sangu ma xamle ne ajjuma deesu ko jàppal dañ koy sangul dañ ko bàyyi xel ajjuma deesu ko jàppal dañ koy sangul da ngay sangu càngaay lu niroo càngaayul janaba la leen di wutale mooy yéene ji rek bu dee janaba da ngay yéene jëf farata bu dee ajuma nga yéene jëfi sunna ndax càngaay loolu sunna la ci ajuma ji la ca wuute ci jëf ca jëf ji mooy bu dee sangu ba soo jàppee ba mu des si tànk da ngay taxawal njàpp ma sangu ba àggal dooru mujj tànk ya bu dee ci ajjuma nag moom ci njàpp ma ngay raxasaale tànk yi loolu képp mooy li leen wuutale gannaaw yéene ja waaye yéene ja mooy li ci ëpp solo taamu na ci itam su fekkee da nga am lu weex lu weex lañ ci gën a taamu te ñu na bu dee ajuma lu weex lañ ca taamu donte eh, lu màggat la su dee it lu yees lañ ca taamu donte lu ñuul la nga dox doxin wu teggiinu eh, su fekkee dangay ngay dox a tànk nga dox ci toroxlu su fekkee da ngaa war it si soo ñëwee ba ci buntu jumaa ji nga ne bismillah da nga jiit sa jiite sa tànku sa tànku ndeyjoor nga jiite ne bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba rahmatik dugg te boo duggee nga dem ba ca sàppe ya te fexe ba doo dëngal sàppi mooy sàppi du dënge ci yow soo asee bala ngaa jekk nga julli ñaari rakaa li ñuy tudd tahiyatul masjid ñaar rakka mooy li ca gën a néew waaye mees naa julli li ko ëppit nag soo jullee ñaar rakka ngir nuyu jàkk ji ba noppi loo ca bëgg a teg ci naafila mën nga ko caa teg waaye soo ko teg soo ko ca tegee ba noppi nag eh, ba toog suñ noddee nodd gu njëkk jarul ngay jugaat di julliwaat ndax foofu amul genn julli guñ fi digle da ngay ñu bari. suñ noddee baagal ñu daan yokket di di di julliwaat na xam loolu foofu digle wuñ fi genn julli fañ la digale mooy boo agsee bala ngaa toog defal sa la nga bëgg a julli lépp toog nag la la xaaraat mooy julli farata ga imam di jiite waaye suñ noddee nag amul genn julli guñ fa digle ci ginnaaw noddu gu njëkk googu eh, teel gee ñëw itam taamu nañ ko mooy bul bàyyi ba mu xat nga ñëw di jéggat mbooloo mi ndax ku la gën a teel a ñëw teel a ñëw waxuma teel faa xëy suba teel toog fa mooy bu nee ba waxtu jege rek ku la njëkk a ñëw ëpp lab yool yéen bi saa sam am am xadis ci indi boo xam da ca ca leeral ne kii ñëw ci waxtu njëkk wi soon أبدا mu ne ki ñëw ci waxtu njëkk wi am na tiyaabe ku sarxe gileem gu màgg badana mooy gileem gu màgg a màgg goo màgg ki ñëw ci waxtu ñaareel mel na ne ku sarxe aw xàbbon xàbbon mooy nag wu mag ki ñëw ci waxtu ñetteel wi am na tiyaabe yu ko sarxe am xaaf mooy xar mu mag ki ñëw ci waxtu ñeenteel yi mel na ne ko sarxe ginaar ki ñëw ci waxtu juróomeel wi mel na ne ko sarxe ab nen nga gis kon tiyaaba yi ni ci njëkk gee ñëw ak ka njëkk a ñëw waxtu njëkk wa tiyaabee sarxe gileem gu noppee màgg ki ñëw ci waxtu mujj bi am tiyaabee sarxe ab nen def naa gileem gu noppee màgg ak nen sore na lool te dafa malaaka yoo xam ne dañuy taxaw ci bunti jumaa ji di bind tur yi ñuy julli si bu im bi ba nodd na ba imam taxaw ci minbar bi dañu daal lem seeni kànni daal di toog ku ñëwti duñ la bind moo tax kon bàyyi ba ñuy xutba ngay door ñëw wala yéex gën yéex a ñëw itam gënu ci soo ñëwee itam ba ci jumaa ji nga sàmmanteeg teggin xam ne yaa ngi ci néegub yàlla mooy tafa waxtaanu adduna ba ñu fell waxtaan am na xadis bi wax ne waxtaan ci biir jumaa day lekk jëf yu baax ni bàyyi ma di lekk am ñax beneen riwaay wax ne day lekk jëf yu baax ni sawara di lekk mat kon kon baaxut soo toogit nga ne ca ne ci lu am njariñ su fekkee da ngaa teel a ñëw eh, ba julli ba noppi nga ne ci lu am njariñ jàngal Alxuraan wala jàng xasida wala tudd yàlla wala xalam sa digg sa boroom sooy jàng mbaa ngi tudd yàlla lu ñu tuddee nga di ko def ndànk bala ngaa yàqal keneen ko ne ci sa ndax am na ko boo waxee ci kaw danga ko yàqal la muy nekk wala nga faab bi am xelam toogin toogin wu jekk bañ a tàllal say tànk bañ fa tëdd jëli naa di fa nelaw soo yoree téléphone nga fay ko mbaa nga def ko silence yi nga xam ne mooy itam du in du du du julli wala nga toog muy sone du yàqal keneen lam nekkoon yépp kon daf bokk ci teggin yi nga xam ne mat naa sàmmante ci ajjuma boo ñëwee ci jumaa ji julli ji ajuma julli ci biir jumaa képp lay wére biir juma mbaa àtteb jumaa biir jumaa xam nañ ko àtteb jumaa mooy jumaa ji fees na ba sàppee génn du doon law law ba kilomètre ba kilomètre it soo ci jokkee yaa ngi ngi mel ni ko jullee ci biir jumaa ji waaye dem dàq genn garab rek gu am ker nga bere fa julli mbaa bare bi ne ci wetu jumaa ji bare bi gaa yu baax nga dem fa julee fa nañu xam ne loolu sa jul du wér ndax jullee woo ci jumaa julloo ci atu kon biir jumaa ji mbaa atu jumaa mooy sàpp yu génne ci jumaa ji soofaloo ba fu mën a àgg rek atu juma la loolu bokk ci nga xam ne mat naa bàyyi xel ci kay julli ajuma mu sàmmanteeg moom bu baax a baax euh, buñ xasee nodd it jaay jaayati fa dëgganut loo fa jaay bu ñu doon àtte lislaam dañ koy xàcc waxu euh, euh, ne jaayu ma nag ba na bàyyi fa sa sa doom mu jaay nga dem julli ba tey moo moo nga fa jaay ñu am képp dañu war a tëj place ba bañ julli ba noppi kon yooyu yan la ci ñu war a sàmmonteel ci ajjuma ñëw na ci xutba bi nga xam ne moom la imaam war a def ci kanam tuuti njëkk dafa tàmbale ci sant yàlla maa ngi sant yàlla mi nga xam ne yërmandeem a xam-xamam moo ëpp lépp te na mboolem àdduna sépp ci ak tabam ak teraangaam ak ak lewetam di seere ne yàlla rek a yàlla kenn du bur ko may moom deesu ko booleeg dara moom rek di seere ne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak jaamam la tey ndawam li nga xam ne ku kawe daraja la Eh, yàlla na suma dolli xéewal mucc ci moom ak mook ñooñu ak saxaabaam mu ganaalool loolu yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla ci di jëf lim leen diggal te yam nag fam leen yamloo moytu lépp loo xam daf koo tere te jàjjee ca ndax moom yàlla subhanahu wa taala képp ku ko ragal moo faral la say ñaawteef yëkkati li yàlla bu màgg wa man yukaffir anhu sayyi'aati wa yu'zim lahu ajra ku ragal yàlla yàlla defal ko ab génnuwaay ci mbir mu mën a doon wërsëgal ko itam fu mu ko foogee wutoon wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib na ngeen gaawantu itam jëpp ci lambayo làmbaayoo mbalaanam tuub balaa buntu ba ndax buntu tuub dañ koy tëj ni su demee baag ca xar-xarle su tuubatee tuub ga du am njariñ kon da ngay tuub balaa booba kon njëkkanteel jëm ci tuub bala ñoo tëj buntu tuub tey jëfit jëf yu baax yi balaa faat jëf ju baax day faat boo demee ba tëli ko ba tàggoo sam xel foofa jëf faat jëf faat na ci yow kon farlu ci jëf lu baax bala nga àgg foofu dangeen ngeen farlu ci topp yàlla ak jëf ju baax sun boo nee na Muhammad saa sam waxal sama jaam ñi ne leen sama jaam ñi gëm yàlla ñuy taxawal julli tey dundale ci li leen yàlla sëgal di dundale ci lu nëbbu di dimbale di di dundale ci lu feeñ balaa bis ba nga xam ne su agsee njaay amatu fa fidya amatu fa xaritoog yépp amut ci bis booba te màng nag seen waxtuy dund xam ne waxtu lu cher la ngeen fexe ba di ko tonalu mooy la la waxtu làmbo ci ñeen ngeen di ko jariñoo mooy fexe ba di ko jeexal ci lu am njariñ lu leen di jural yiw de jiral teex ak tey googu ëllëg bala ngeen àgg ci bis ba nga xam ne bakkan dana wax ne ay man fu ma jëm bu démb doon tey day du ma sàggan ci lii ma sàggan ci wetu yàlla ak donte nag ak loo ci mën a fekk yàlla na son boo defal defal te defal leen ñu bokk ci nga xam ne dañu buñ déggee euh, wax dañu jële ci gën a rafet kon loolu mooy xutba euh, bu njëkk bi euh, xutba ñaareel bi mu tàmbalee ko ci sant yàlla moom it sant yàlla sant yàlla waa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne maa ngi sant yàlla cant ku nangu la ko yàlla defal ci ay xéewal di seere yi ne yàlla moom rek mooy buur ci asamaan moom rek ay buur yitam ci kaw suuf wax ne yéen sa sa Seydina Oustaz Sy mooy jaamam bi mu tànn te yéen tam bi mu jegeel te nekk yi ñuy xentu ci lépp sallallahu alayhi wa sallam yal yàlla dool xel ci ak mucc ak képp ku ko méng ak képp ku askanoo ci moom moo xam askanug jege ñaali ci wàllu deret la wala askanug àndandoo muy ay saxaabaam ngir màggoog wetam. gannaaw li yéen jaam yàlla yi képp koo xam ne dafa tànn addunaam rekk jiital ko ci lépp def ko muy teraangaam na xam ne doyadal dal na diineem waaye képp koo xam ne itam not na ban koo xam ne banneexam noot na ko amu sikk sàkk ci ne faaw yaqiinam day day woyof kóolu itam dafa dafay woyof toyy dafay doyadi képp wax xam dafa dafa yamale ab gisam ci àdduna rek nga xam ne àdduna képp taar bu àdduna képp la gis ak ak ak ak uh, ak foy teefam ak xoy-xoy àdduna képp ci la yamale ab jisam at te àdduna di lu gàtt di luy jaax na xam perte ak sooy nar na ko ñeel waaye képp dafa nag dafa séq ab jéego nag jëm ci àllaaxira la muy jëf ci àdduna mu doon lu muy waajal ëllëg àllaaxira yi nga xam ne amul fu mu yam day wéy di wéy kooku mooy itam sóobu na ci yoonu texe ak tuufoo euh, xéewali sunu borom subhanahu wa taala ci rafetuk mujj wala rafetuk delluwaay yentu yentu aleyhi salaatu wa salaam wax na ne àdduna ak alaaxi dafa mel ne ay wujj koo ca gërëm loo merloo ko ca des ku bëgg ndax àdduna dalay woo ci ne yow kat ku tedd nga kon dangaa war a puukarewu alaaxir di la la woo moom ci ak toroxlu ak wàcce sa bopp kon koo ca defal lam bëgg rek merloo ko ca des man axaba dunyaahu adarra bi axiratihi wa man axaba axiratahu adarra bi dunyaahu mu ne kon nag rekk waay tànn leen li li lii des di wey mu gën leen li jeex àdduna day des alaxi àdduna day jeex alaxi day des kon tànn la tànnal la lay des mu gënal la liy jeex te ngeen njëkkante jëm ci njéglu seen borom gi nga xam ne ak àjjana ji nga xam ne yaatuwaayam mi mi ngi day asamaan ak suuf te yàlla dexal ko ñi nga xam ne ñoo ko ragal mu ne yàlla na yàlla defal tawfiq defal leen ko defal leen ko ni mu ko defalee woon gaa yu baax yu sell ya fi jiitu woon eh, te yàlla jégal nu jégal leen kon foofu la xutba ñaar bi yam yan sunu moom dimbale bool defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa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 الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وعم العوالم كلها جودا وكرما وحلما جودا وكرما وحلما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 ittaqu llaha fima amar wantahu amma anhu naha wa zajar fa innahu wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaytu laa yaxtasib wa baadiru bi lixaafi tawbati qabla xilaaqi baabiha wa bil acmaali saalixaati qabla fawaatiha wajtahiduu fi taaca wal camali saalix qaala tacaalaa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 الحمد لله حمد معترف بما أولاه مولاه وأشهد أنه الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأن سيدنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المقرب المقتفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من والاه وانتمى بقرابة أو صحبة لعظيم جنابه وعلى علاه أما بعد فيا عباد الله من كرمت عليه دنياه هان عليه دينه ومن غلب عليه هواه ضعف لا محالة يقينه ومن قصر نظرا نظره على زهرة الدنيا العاجلة خسر وخاب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 uiddat lilmuttaqin wafaqana allahu wa iyaakum lima wafaqa bihi ibaadahu almuxlasiin amin yaxfiru llahu lana wa lakum allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar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 يشاء الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حبنا ولقد حب الله أكبر الله allahu akbar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 akbar سمع الله لهم ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر allahu akbar allahu akbar asalaamualeykum. asalaam.